jërë ngeen jëf mbokk internet bi bpactu.com ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ñu amee habitude di ci ànd ak yéen saa su nekk di leen indil seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi ba tax na nag tey dañ koy daal di ubbee ak grève yi nga xamante ni moom la chauffeur ak receveur tata yi doon amal ci ñaari fan yi mu nekk loo xamante ni causé woon na problème bu baree bari ci wàllum transport fii nii ci Dakar ñu ci bari dañuy taxaw ci mbedd yi ñenn nag dañoo dem sax ba yokk li nga xamante ni moom la seen tarif de transport lu ci mel ni taxi maane ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo yox car rapide ak yeneen transport en commun yu fi nekkoon waaye teewul ni ba tey jafe-jafe amoon na ci wàllum dem beek dikk bi ginnaaw ñaari fan yi nga xamante ni nag def nañ ko grève trouvé nañu benn terrain d'entente seen biir ba ca jiitu mooy duñ leen toppee lenn ci grève bi nga xamante ne moom lañ doon amal ndax nag kenn ci seen jiiti mu ngi doon wax ni amuñu droit def grève alors que dañoo nekk sous contrat bu seen contrat jeexoon mënoon nañoo def grève instant bi duñ leen toppee li nga xamante lañ doon ñaxtu leen nii d'accord nañ ko leneen yi nag dañuy xal continuer di ko négocier ak ñoom ba keroog ñuy am lu ci lu ñu bëgg tey nag ce matin tàmbalee ñu waat daw comme ni ñu ko doon defee rek seen routine de tous les jours bu ñu jógee ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di chauffeur Tata yi dañuy daal di jàll ci crédit mutuel du Sénégal travailleurs yi fa nekk nag dinañu entamer benn grève tàmbalee ko le 19 le 20 ak le 22 incha allah nee nañu nag dañuy réclamer li nga xamante ni moom moo di seen départ DG mënatuñoo continuer mu nekk seen njiit ndax am lu bari lu ñuy ñaxtu loo xamante ni dégluwu leen ci benn yoon donc le 19 le 20 ak le 22 incha allah crédit mutuel du Sénégal du ubbi dañ koy tëj mën na nekk benn situation financière boo xamante ni nag dina impacter lu bari ndax ku ne xam na ni banque warul tëj benn yoon banque warul def standby warul def dara ndax euh, lu ci bari ci lay daal di jóge comme comme réew mi alerté nañ ko 19 20 ak le 22 incha allah. troisième vague coronavirus nag tàmbali naa def ay jéeya fii nii ci réewum Sénégal rawatina ci région bu Dakar ndax gis nañu lu toll ci 28000 cas yoo xamante ni am nañ ko actuellement fii nii ci région de Dakar ak ay nit yuñ ci ñàkkee seen bakkan li nga xamante ni nag moom di hôpitaux yi ak réanimation yi fees na ba amatuñu fu ñu def nit ñi teewul ni nag askan bi bàyyiwuñ ci xel benn yoon ñenn ñi sax dañoo jàpp ni li nga xamante ni moom moo troisième cas bi ñoo ko bëgg a créer rek médecin yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci nguur gi ba tax na le syndicat des le syndicaliste des médecins ñoom nag daal di nañuy alerter euh, njuutum réew bi ak képp koo xamante ni yow yaa jiite wàllum koom-koom bi di leen yëgal ne lépp luy cérémonie religieuse lépp loo xamante ni dafa jum ci wàllum culturel nit ñi di ko def maanaam muy nekk ay affaire baptême ngénte sabar wala leneen loo xamante ni day dajale ay nit ba ci li nga xamante ni moom moo di campagne politique yi alerté nañu su njuutum réew mu daal di koy arrêté na gën a gaawee ndax actuellement euh, baax a baax ñoom instant bi mbir mi tàmbalee na leen a ëpp loxo loolu donc la ñuy trouver comme solution ñu daal di koy interdire comme nañ ko interdire woon ci première vague ba ndax set fois yi moom moo gën a garaaw lool cas yi day multiplier wu te variant bi ñoo ngi koy tuddee lambda ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne soxla nañ ko wàllum vaccin moom gis nañ ne benn dose dayatul faaw ñu dem wuti waat leneen loo xamante ne dinañ ko renforcer ngir malade yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Sénégal Dakar nag moom moo ci gën a takkarnaase avec 28 000 cas ñu daal di jàll ci ki nga xamante ni moom moo di Karim Xurum Xaq ginnaaw ba Iran Ndaw ñaanee njekk Wally Balago Seck ngir mu daal di bàyyi Euh, oustaz Makhtar Sarr Karim Xurum Xakk nag rafetlu bu ko benn yoon ndax mi ngi jàpp ni kii nii di Wally Seck ñoom dañoo soxla woon demoon ak moom ci procès ba le 11 août incha ndax bu ñu demee dinañ ko laaj ñetti question yoo xamante ni par la force dina ci répondre ba ci jiitu moom nee na du góor jigéen donc loolu moo tax muy faral di sol seen ay t-shirt seen ay dàll ak yenn ci tubéy yi nga xamante ni moom lay faral di sol teg ci lan moo tax borom ñaari tur di ko envoyé message ci ay comptam di ko remercier ndax promotion bi nga xamante ni moom moom la leen di defal kar ma xunum xakk nee na loolu la gënoon a yàkkamte ci àddunaam dem jàkkaarloo ak procureur bi ak Waly Balago Seck mu tontu ci question yooyu ndax ñoom ragaluñu benn yoon li ñuy wax lenn rek moom moo leen ñoroon janoo ak Waly Balago Seck mu jox leen ay preuve yu leer naa ñi que amul benn relation ak góor jigéen ñi dëgg la nag oustaz Iran Ndaw liggéeyam lay def ndax euh, nitu yàlla boo gis nag euh, bu sañoon fu ñagas fu nekk rek da koy daal di rataxal waaye bu sañoon ñu bàyyi noonu sans pour autant ñu def médiation bu ko defee ñu daal di koy euh, tëjee ci rapport boobee ñuy woowee Dof Ndeye moom nag famille moo ko daal di renvoyé en prison euh, d'après ba mu accusé de vol ki nga xamante ni moom moo di petit frère am ndax nee na euh, dafa dencoon xaalisam ci kër gi petit frère bi daal di koy sàcc mu dugg néegam lépp loo xamante ni yëre la woon ak matériel mu daal di koy taal te ci tamit li leen def ay menace de mort looloo tax ñu daal di koy porter plainte yoon daal di koy jël ci saa si jamono ji ñu waxee ak yéen Dof Ndeye mi ngi derrière les barreaux.